salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu leen di indi tey seen beneen numéro wu découverte tey ñu ñëw vraiment découvrir li ñuy wax euh, foire bi nga xam ne tey mooy mu ñu tuddee première édition wu foire départementale de Dakar lu jëm ci wàllu càmm plus précisément ci lu jëm ci yarum laadum tey ñu ñëw découvrir si première édition wu foire départementale de Dakar ak association ñaari association yu nekk HLM

soog sooga jeex léegi ñu xool tey vraiment exposants yi ñu mën a wax ak ñoom donc ñu dinañ dugg ci biir xool xool gars yi gis ngeen gis ngeen exposition bi nu mel gis ngeen xar yi gis ngeen bâche mu mel ni tey exposition bi vraiment am na solo waaw ñu ngi tase ak benn éleveur kii nag moom kenn door ko présenté muy Pape Niang Pape Pape ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay ñu bàyyi la nga présenté wu ñuy seera waaw salaamaaleykum waa Asfiyahi TV donc maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp yéen a ngi bés di Pape Niang Pape Niang ñu ngi lay ziar bu baax tey wa non yow xam nga di yëfu ñangeen rek ngay def ba bool bi feeñul si ba bool bi feeñul ba bo bool bi feeñalu <laughs> pap ñu bay la tay nga présenter ñu sujet yi nga indi tay wa tay le góorgóorlu nañ am na quelques sujet yu ñu fi andi ki moy madame Diop wa madame Diop nek dom Salsep sa mo ngi ci 6 mois wa donc Salsep daal dañu andi tey ak ay domam gis nañ ni concours bi dembu Salsep woné na ay résultats yu am am solo mu melni mo jël euh, mal 3e au niveau du podium donc lolu mu melni tay liggey ngeen liggey ba tollu fofu

foire départementale. waaw foire bi nekk na foire boo xam ne am nañ si yaakaar te foire bi gars yi di bàyyi xel la waaw parce que foire bi mu ngi première édition moom mu mel nii donc wax gars yi bàyyi xel xam ne dina ñëw chaque année dina gën a jëm kanam incha allah rabi waaw. lan ngay tëjee comme ñu dem xooli yeneen box yi. waaw donc maa ngi ñaanal yàlla foire bi ñu commencé jàmm ñu jeexee noonu si jàmm chaque at mi gën a kon ne gën a jëm kanam incha allah rabi. Salsep léegi kon xam naa dañuy jox rendez-vous découverte rek biir bergerie mu jaar am. moom

impact bi ngeen commencé jouer si élevage bi donc ñoo ngi leen gis ñoo bàyyi xel bu baax a baax yàlla gën a jëm kanam incha allah rabi def merci Moussa ñu xooli yeneen box. lii bergerie Baraka la bergerie Baraka ku fi mu nekk fii waaw ñëwal bokk ñëwal ñëwal. yan sujet ngeen ñu mën a présenté.

donc euh, peut-être dama leen di présenter kii sëtam la ak euh, Avec euh, ak ak Adieu Adieu di doomu bâtonnier ak la diva donc moi mooy la diva plus mon modèle jël espoir Saladam espoir première femelle espoir donc qui c'est des aussi jeune mâle bi waaw gis nga ko dafa xaw a kii nag quoi <laughs> moom doomu malayka la la plus grande femelle de la bergerie Baraka ah. fille de fille de fille de fille de bâtonnier aussi dañ ko fixé si bâtonnier ak benn doomu atomique bi ñuy wax Minam. Minam waaw waaw le champion très bien le champion Minam mi ngi tout juste derrière. waaw ki si des aussi surtout Malayka la ak ce que, di doomu her euh, surtout Hercule ak euh, voilà euh, Terminus bi Samir Younis yor. voilà ñooñu ñooñu lañ indi fii box bi peut-être a box bi aussi. waaw. kii Surtout bâtonnier la ñoom ñëpp ay sëtu bâtonnier la par contre am na benn doom bâtonnier. Ah. donc kii mooy taawu. Eh. non <laughs> lekk voilà moom doomu euh, moom mooy taawu atomique par contre. waaw yaayam di doomu Jooni ak euh, benn doomu magistrat kii aussi sëtu bâtonnier la yaayam doomu bâtonnier la papam di chef de gang de gang di doomu Jazaka yaayam di doomu préfet donc moom mooy jumeau wu mal bi ñëw Saladam jël deuxième ah. est euh, mal mal agneau donc euh, voilà waaw laal na salum, voilà très bien donc kee aussi doomu bâtonnier la moom ah, yaayam di doomu jooni femelle bële waaw bële sëtu bâtonnier la papam di Darwin voilà donc ñooñu lañu indi exposé bu sew rek ñëw wane encore une fois famille bâtonnier ak liggéey bi fi mu toll quoi. macha allah noo gisee foire départementale seen première édition bu ñu organisé nii tey loolu nan nga ko gisee aussi tamit tay organisation ngi vraiment foire commencé lan bon à vrai dire foire bu neex la niveau période foire aussi parce que il fait pas trop chaud donc euh, c'est c'est climat arrangé voilà très bien donc foire bi amna niveau Élevé. yu mag foire départementale première édition donc euh, ñun ñi ngi am yaakaar yeneen eh, éditions yi ñëw dina gën a rëy dina dàq li surtout voilà donc si woo ñëpp looy tëjee waaw maa ngi jaajëfal waa sama mbokk internet yi waa Asfia FM eh, ah, TV ak FM wala très bien boobu laay gën a déglu <laughs> waa di leen jaajëfal di leen wax liggéey bi continuer leen si rafet na trop yàlla na yàlla dëgëral taxawaay jërëjëf jaa ngeen jëf ah, donc ñu continuer aussi gis ngeen foire bi vraiment comme ni ko éleveurs yi waxe nekk na foire boo xam ne première édition la mais ku ko xool xam ni am na niveau am na niveau vraiment à vrai am na niveau donc ñu duggaat xool yeneen box yi continuer ak éleveurs yi. xool bergerie bi bergerie bi mooy bergerie Koumba Thian waaw ñu am ñu di maal bu tudd Umra mu nekk doomu gaynde yaayam nekk euh, surtout saa xewar petite fille de Cheikh Anta voilà. fekk ñu borom bergerie bi mais bon am na ay sujet yu rafet quand même mal bi rafet na gis nañ ni aussi am na añel bu rafet waaye bu nekk ni donc macha allah macha allah donc ñu continuer ñëw bergerie Bambodji Bambodji mu nekk bergerie Pa Mansour Mbodj bergerie bi vraiment mu nekk bergerie référence bergerie boo xam ni vraiment ki ko moom. nekk na koo xam ni tey mun na ni moo bokk na ci ñu démarrer yaru laadum pionnier la tey ci yar bi nga xam ne tey mooy élevage u laadum ñu dugg ak maas mooy moo nekk ci xar yi ñu xool sujet yi bergerie Pa Mansour Mbodj maas ñu ngi lay nuyu lay fay grand bi nga delloo ziar bu baax lan lay indi ah, ah rek si bergerie Pa Mansour Mbodj maal bi kan maal doomu gaynde la moom. Ah, doomu gaynde la. doomu a la waaw. ñoo jënd waaw ñu ne ñoom Cheikh waaw. ñaar na 23 mois léegi waaw. bientôt deux ans. bientôt deux dugal ngeen ko ci concours bi dugul woon ci concours. non non moom dugul woon ci concours bi ah. non non. ndax dugaloo leen. concours moom. wax na dëgg nag paa moom mun na bañ a concours. waaw mun na bañ concours. c'est vrai noo gisee noo gisee tey vraiment événement bi mu nekk premier édition bu foire départementale. waaw foire moom macha allah moom première édition bi jaar na yoon organisation bi tamit macha allah waaw mun nañ. d'accord tey. gaynde njolloor gaynde njolloor wax deug yalla ah ci ci même pas 2 ans presque 2 ans mu mu am maturation yi wax deug yalla mën nañ ci am ñom mo ci mom yaaka waaw mën nañ ci am yaaka waaw. dafay def production bu rafet tamit aussi quoi. mais bu présenter ñu production bi. waaw mo ci deug bi ni deug bi do mo Reug la. am 4 mois yaay do rek rek la. Ah. am na 4 mois waaw. ok. ak jeune mâle bële na rek. jeune mâle bi TFM. ok ok. kon kii waa TFM ñoom Birane Ndour war nañ la seet si ah. war nañ ñëw seet si maa ngi seen président Abou Kane na la xam naa ne après bu ñu jugee fii balaa ñuy dugg ci bergerie bi bi ñu dendal dañuy dem ci moom Mass TFM mi ngi si ñaata mois. le 6 bi la am 4 mois. non le 6 bii la am 4 mois le 6 décembre la am 4 mois waaw. Mass sànq naa gars yi naan est ce que gars yi dañu yokk âge xar yi kii moom. Ah? non kii moom vidéo yi naa ko génne kay ñëpp gis ko kay Masha'Allah, Masha'Allah. Mas, allah ce que tu balaa ah ñu affaire yi masha'allah, mon allah émission yi dina sais pas. merci beaucoup. vraiment ñu ñëwaat le président Aboukan président sommes ñu ñëw ci première édition du département de Dakar donc ñu gis vraiment taxawaay bu am solo ak discours aussi qui est tenir mu discours yoo xam ne la aussi mu nekk loo xam c'est fédérateur ñu woon nit ñi pour ñu ñëw bokk biir FENACO organiser wu en quelque sorte nekk groupe boo xam day dina faciliter ci waaw euh, tey dañ fi wax ñaari affaire yu am solo benn bi mooy mbooloo mbooloo moom fi ñu ko tudd mooy doole ah euh, donc aujourd'hui, jii dañuy gis euh, pëccaxoo bu am si biir foire ah, chaque semaine foire chaque quartier foire chaque commune foire loolu mënul continuer et c'est les mêmes maisons c'est les mêmes bergeries c'est les mêmes moutons c'est les mêmes sponsors dem na ba autorités yi tàyyi nañ sax ñëw suñu foire les sponsors léegi bëggatuñu ñëw suñu foire

Euh, département Pikine def def ko wara def département Kermassar, département Kër Massar département Rufisque région yi ñu def des foires régionales dajale des départements de chaque région def une foire lo suñ ko on aura moins d'une dizaine de foires ce qui fait que les sponsors dinañ mëna participer à toutes les foires les autorités dinañ présentes présent à toutes les foires les éleveurs ils n'auront pas toutes les semaines à choisir ban foire lañ wara dem wala de ce fait ce sera de véritables salons de l'élevage et de ci am L'année li il faut qu'on apprenne à se prendre en charge Nous avons des aliments, aliment bi cher na mais ce qui est cher, du dara une ñun dañu position De dañu Nous renverser la tendance avons une position producteur ah, même producteur vendeur parce que tu as dit, na ay éleveurs yi nga qui ont am nañ de fourrage ñi ko am ñi ko mën nañ ko def suñ ko defee bu boobaa ngooñ bi ah duñ ko toog di koy xëccoo ba muy jar ay dix mille ay cinq mille francs bu boobaa éleveur bi dina mën a jàpp boppam en charge ngooñ bi dina wàcc su wàccee tamit dina bénéficier aux gens yi nga xam ne amuñu doole. bu boobaa ñooñu dinañ mën a jënd ngooñ sac mille cinq cent wala sac deux mille francs bu boobaa tamit éleveur bi euh, euh, xaram euh, vu que moom mooy produire aliment am xaram fu mu ko naroon. diké cinq cent mille xar bobu dina ko diké ay deux cent mille de telle sorte que yow tey ji soo amee sa laadum bi su éleveur ñëwé mun nga ko jaay prix bu fort su fi éleveur bi ñëwul ding ko mëna jaay si ngénte euh, trois cent mille quatre cent mille nga mën ci génn bu très largement. tay président légui wax lool rafet na mais pour lu ñu tëj rek gis nañ fi tamit euh, euh, le grand serigne de Dakar wax fi aussi benen discours bo xam tamit woo na leen moom mi nga xamni mi ngi chambre de commerce nek ci président yi donc tay lan ngeen oui si par rapport à son discours là. mais ce discours là c'est un jeu beau discours bi nga xam ne dañ ko en compte parce que wax waxu chambre de commerce chambre de commerce tey jii ñëpp la fi nekkal chambre de commerce aussi il y' a une grande commission bi nga élevage agriculture élevage Et nous gisuñu si éleveurs effectivement man une fois j'en ai discuté avec le président de la chambre ah donc ñun nous si dañu dañu si war gis c'est une faute la mais nous aussi une faute la ah donc nous dañu si war a gis le salon de l'agriculture de Paris l'union des chambres de commerce nous organisé. Mais sur 100 euh, personnes qui sont venues au salon de l'agriculture, qui est le éleveur Nous sommes venus à La plupart des cas, nous sommes venus en charge. Ou 99% des cas, nous sommes venus en charge. Donc, donc, lolo, il y a mais il y a aussi passe-passe. Parce que aussi, ce que vous avez, vous l'avez fait. Ce que vous avez, vous l'avez fait mais lolo, aussi ça ça nécessite une bonne organisation Hein, donc de siy ñaax éleveurs yëpp vraiment euh, di lancer appel euh, la fédération est là pour tout le monde euh, association yi nga xam adhérer, jotaguñu adhérer. il est encore temps suñu adhérer, ñun ñëpp ñu xàccandoo dóorandoo élevage jëm kanam. macha merci président Aboukan. mu nekkoon vraiment ay discours lu am solo yu président Aboukan. wax donc grand Serigne vraiment gis nañ mu tenir fi discours boo xam bu poignant la discours fédérateur boo xam dina woo éleveurs yëpp ñu ñëw aska ñu liggéey ci benn benn benn mbir boo xam ni tey dina leen gën a mën a boole gën a leen mën a jëm leen kanam donc vraiment mu nekkul am solo li président Aboukane wax ñu duggaat ci biir xuus xool yeneen box yi. bergerie alhamdulilah de Siré fii moom suñu bergerie la fii fii suñu kër la donc Siré nekk fi mais Birane mi ngi fi Birane su fi nekkee day mel ni Siré mi ngi fi donc Birane ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay. sambion jaga ñu ngai lay delloo ziar bu baax. Iya, non dama champion No, yéen ay champion. non yow champion nga yow ci kër gi nga bokk. ngai moom dafa leer mais maa ngi lay ziar. waa ñu ngi ziar bu wér. ñu eh, lay nga nga wan ñu présenté ñu mal bi ngeen indi muy berger alhamdulilah mu tudd Hamid tey lan nga ñu mën a wax ci maal bi ak nga ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi man la Birane Naar nekk berger alhamdulilah de sere Diakité waaw mal bi ma leen présenté mal bi di Hamid. Hamid di doomu Njaabu Gileem Njaabu Gileem doomu bâtonnier euh, Hamid yaayam euh, di doomu yaayam benn doomu kii moo ko euh, benn doomu bidéw bu fàkk waaw moom moo am 100 pour cent magistrat bi waaw ñoo indi ko exposé ko fii ci foire départementale de Dakar. tey tey Hamid mi ngi toll ci ci ñaata mois. Hamid mi ngi toll si 35 mois waaw. mu mel ni dugoon na concours. waaw dugal naa concours doon ko natt pour xam mensuration yi fu toll. donc sati vous êtes satisfaisant kontaan ngeen ci mensuration yi ma. Wa kontaan nañ wax dëgg yàlla vraiment kontaan nañ euh, bien vrai que mensuration yi xaw na mais bon sant yàlla quoi ndax manam natt bu sévère na te natt bu sévère moom boo ci amee ay mensuration yu baax rek am nga ay mensuration yu normal. kon tey yan sujet ngeen indi tey pour ci waaw indi nañ fi benn doomu papa indi nañ fi benn doomu Sidi Anta. indi nañ fi tamit euh, ñaari setu gaynde waaw ak euh, taawu xamit bi njëkk jur kër ga. Euh, mooy mbote bi waaw. bien vrai que bañ ko jëndee yàggul mais bon kim fa njëkk a wàccee si mbote moom lañ indaale. macha allah loolu moom am na solo mu wane tey femelle yi indi yëpp femelle macha allah ku xam bergerie Siré vraiment bergerie alhamdulilah xam ni ñoom ci qualité la ñuy dox. vraiment donc ay sujets yu hors classe yi indi mu mel ni loolu tamit lii fi li ñu fi exposé nii wane na ko. Birane tey lan ngay tëjee ñu mën a jàll ci yeneen box yi. waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal éleveurs yëpp jàmm waaw loolu daal la am nu may wax waaw. mais foire départementale en gros organisation non vraiment foire bi dafa am niveau. te dàq na ay foire nag. foire bi am na niveau vraiment. première édition mu mel nii macha allah macha allah. donc kon ñu daw xool yeneen. waaw incha allah jaajëf. Pa Massoum Mbodj mu nga xam ne tey kenn dootu ko présenté ci milieu élevage mu nekk góor goo xam ne élevage fonk nañ ko fonk boo xam ne tey mun nañ ni xar yi fu ñu démarré histoire bu bëri tey ci diggante moom mi bokk na ci am na ci wàll à 100 pour cent ci élevage u Ladoum tey fi mu toll mu nekk koo xam ne pionnier bu mag la ci loolu du très muy wax ci télé nag musul wax ci caméra caméra mun naa ne lii exclusivité la bu ma am Pa Massoum ñu bàyyi la maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant ah, di nuyu sama mbokki éleveur yi yi nekk fiñ koy waxe ni ci asalem ci seen foire bi nga xam ni eh, ñu ngi koy door a taxawal muy seen première foire boo xam ni eh, dañoo dañoo medina ak asalem ak biir Dakar ak Grand Dakar yépp dañ koo boole mu nekk benn ñu ngi koy rafetlu loolu. di ñaan éleveurs yëpp ñu toppandoo ci gis toppandoo ci ñoom ndax foire yi dañoo bare bare bare ba kenn xamatul lu muy nuru nañu àndandoo nekk benn boole xol yi di ko jéem def ay foire yu mag bu fu mel ne pikin ak Géejawaay ak côté yooyu ko wër ak yëmbal ak mbaaw ak yooyu yëpp ñu àndandoo nekk benn di def benn foire bu ñu ko defee rek li ñu bëgg daañu ko am waaye nag bu fekkente ni. kii dafa jaar fii kii jaar fi kii jaar fi dañuy tas te tas gi baaxul tas gi amul njariñ te nit ñi dañuy doxa doxa dox ba sonn ci foire yi ku mel ne man nga xam ne mag laa jóg yombatuma wax dëgg si yàlla ba may xale amoon naa cawar ceeg foire bu am ma dem ca mais léegi mënatuma ko te foire yi dañoo bari te ku la ci wax foire am te man xale yi dañ maa bëgg dañ maa sopp te yàlla tax amul mag amul xale ñëpp ma bëgg e loolu maa ngi leen ci sant di ci gërëm di leen ñaan ngeen gën a góorgóorlu gën a jaxasoo gën a booloo nekk benn di def dajale foor yi muy nekk benn waaye ak Pikine ak yëmbël Kër masaar ñoo ñëpp waroon nañoo mën a bokk ba parcelle bokk war nañ cee mën a bokk ba parcelle war nañ cee mën a bokk loolu bu ko defee rek daañu réussir dëgg la mu mel ni foire bi waaw waaw waaye nag tant que ñi ngi tasaaroo rek liñ bëgg doon ko am eh ñu maa ngi leen di sant na di leen gërëm kenn ku ci nekk ci sa tur ak sa sant xale bi ci gën a tuuti ak ki ci gën a nekk mag ñoom ñëpp amel naa leen njukkal ndax dañ maa bëgg te yàlla tax waaye ku bëgg bëgg nga ko ñëpp laa bëgg aw ma xaj ak seen bu ma sañoon képp ku faar dinaa fa taxaw ah maa ngi leen sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mu nekkoon Pa Mansour Mbodj mi nga xam ne kenn doot ko présenté vraiment ci foire yi tay lii ñu wax am ci mom mu wax sax vraiment reyna mu woté vraiment nek def discours bo xamni c'est fédérateur mom aussi mu melni ni foire départementale bi dal vraiment mu nek foire bu am am solo donc ñu dugg xol benen box dellusiwaat ci biir incha allah. bergerie Kodou Bigué Djibi Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ñu lay delloo ziar bu wér a bon man la Djibi ñay nek euh, propriété bu.

vraiment moom ay mensuration yu am am solo yu ñu ñi am yaakaar tey lan nga ci mën bon Alla Sakho euh, naan li ngeen li gars yi naan da ngay nekk sa kër di xeeb li ngay liggéey alors boo génnee kenn du la mën man loolu laa gisee Alla Sakho du dama jàpp ni Alla Sakho à 11 mois kuy sa papa bat kuy sa maam bâtonnier moo jur sa papa nga xam ne tey moo njëkk a def mille 2020 ma def fi hauteur 120 jusqu'à présent record bi tey lay ren lay soog a wàcc muy léegi ñu ne déetawaay te ki ko wàccee doom Picasso la te Alla yaayam doomu Yelmin la te Yelmin Omar Séré moo ko jur ak Aline Sitoé te Aline ak Picasso mi jur Bour Saloum ñoo bokk ndey ak baay mu dajale ñaari récolte yooyu di ko premier jour bi ma ñëwee ci foire bi ba xaal Alla dugee ba ñëw ci box bi ñëpp box bi dafa fees ñu ne Djibi Ndiaye si espoir bi alors que sa espoir sa espoir bi may xar bi 11 mois la te ñii ma làngool ñii yëpp nga xam ne foire bi tey suñu mag suñu lépp moo nekk nii sama kanam muy Siré Diakité bàcc moo ñoo nekk ne ñëpp xam nañ date de naissance su xar beeg yow ak yow tamit ñëw nga yàgg sama kër gi. man ba ma ko la koy wax. xam naa ne sax gëmoon. voilà muy noonu ñu bëri en maam ñaari champion ñoo neex te yokkateendoo ci même bergerie. suwaat nga pousse benn ba mu jug. suwaat boo poussé benn ba mu jug ngay soog a mën a focaliser wu ci beneen mais xar bi bu ma jëloon yenn temps ma def sax si Escobar plus que lii lay indi.

parce que élevage bi kenn moomu ko ñun ay grand yi ñoo fi nekk ay saoudien yoo xam ne ñu ngi ñëw jënd ay xar ñun ay jeunes éleveurs la bu ñu amoon ku ci mel ni ay grand ku ci mel ak yooyu amaana du ñu am xar yu mel ni di ko ku ci mel ni yow boo ñëwee di nga gis jeune éleveur jóg ñu siggil ko sagal ko ci monoom ay yu mel ni ay grand am kon amuñu amuñu safay quoi waaw di la kontaanee lu bëree bëree bare ma leen remercier muy yow muy Siré yéen yéen a boole seen biir donc mënuma lu di leen di leen sant donc ñu dem xooli yeneen bergerie yeneen bergerie yi ak yeneen box yi. une exposition bi nu mu mel nii gis ngeen vraiment mu exposition boo xam exposition bu ama ama ama solo la mu melni ay sujets de qualité vraiment rek ñoo fi nek et que c'est des sujets d'exception comme les gars yi wax mais vraiment c'est c'est c'est des des choses à à saluer tay ñu ñëw gis docteur Alioune Sarr mi nga xam tay tey na fi vraiment discours bu ama am solo que ñi vraiment di la jox sa way di la wax ni sa teewaay fii rafet na déglu nañ aussi discours rassembleur bi nga wax discours boole bi ak discours xam-xam bi nga wax tey euh, lan nga am looy yokk ci yow. Eh, yokk ci dara dina xaw a doy waar xanaa wax baamtu rek. waaw baamtu. Eh, élevage dafa doy ñëpp la mun a boole. lu yëngatu ci nit rek ci àddina càmm mun na leen a boole. am na ko ko wax léegi ñi ñu yónni yëpp ci diine yi doonoon nañ ay sàmm ku mënalul boppam dara nga yeew ko toppatoo ko tiyaaba bu rëy mu ngi ci éleveurs yi nag foog naa war nañ dépasser jamono maa fi dàq xar maa fi gën lii walla li ma am rekk moo baax dañ toll foo xam lañ war a def ba xar yëpp avancé mais nak nit ñi nañ japp aussi ne ñëpp mënuñ nekk ci kaw de Ñi dañuy nekk ci kaw ñi nekk ci souf, ñi ci souf di jappalé ñi ci kaw ñi ci kaw di gestu ñi ci souf. Loloy développer élevage bi suñu andé dinañ progresser ci lu bari esprit concours déjà dama dire ne foire yu bari day xar surtout ben, nit ñi jema tout pour gagner et pas pour indi rek woné yow li ngay yor. pour exposer waaw da c'est la première fois depuis quarante ans ñu indi ay xar mais benn thème rek la indi dama indi ñetti femelle bi mo jur Bi, bi jur bi donc dom ñewna mam ñewna ñëw na yaay donc c'est ça qui est beau en élevage nango liggéey yor sa xaalis dem fekk xar mu paré nga jënduko ah, am nga mérite mais waaw war nga wala soko joté nga liggéey ci ci maximum deux ans nga ko mën wala lu toll ni un échec donc di len encourager ñu gëna générosité nak di partager suñ ko defee rek élevage bi da gëna jëm kanam. mu melni tay discours bu am solo tay euh, manam ay kilifa yëkkati nañ ko fi mu melni ay Aboukan président Aboukan mu melni Serigne Bassirou euh, le grand Serigne de Dakar donc tay discours yoy nga xam dafa fédérateur boobu ba gëna bolé ak bolé nit ñi ci aussi wo len ci lu jëm ci forage bi donc yoy aussi mu nekk ay perspectives yo xam éleveur yi war nañ dem ko way ñun yag nañ ko wax élevage mënul dem té likoy accompagner top ci moy li jur yi dundi

on a assez d'espace, on a tout ce qu'il faut pour faire des moutons améliorés. améliorés. exemple, vers les années 90, maman son ben charitable. Chaque fois, si nous avons un qui hésité ma métis deux ans à peu près modèle aussi. dama eh, docteur bu njëkk de yi xar trente mille daf doon doon suma problème te dama doon wër bi bëgg a dee balaa ma koy jaay léegi damay tëdd ci suma piliaan gars yi di ñëw may jaayi suma xar deux cent mille. mel ni amélioration bi am na solo. voilà c'est important. donc ñu ngi remercier vraiment docteur Alioune Sarr ñi lay remercier bu baax aussi di wax ni ku am solo la ci càmm gi bokk na dafa nëbbatu mais nekk na koo xam ne vraiment pionnier la ci biir. Euh, fi ñoom président Aboukan tollok ñom ñëpp mom mi fofu la tollu manam dafa nekk ci ruxam rek aussi ñu duggaat vraiment xool exposition bi xool bergerie yi. foire bi vraiment amna solo parce que tu vois vraiment lo xamni en dehors de l'exposition de des bêtes di nga gis tay ñoo xamni dañ fi ñëw def di fi jaay y a les vétérinaires yaa ñuy jaay ay salam salaamaaleykum ya vraiment ñëpp ñi nga xam ne tey dañ fiy jaay ay ay pour donc vraiment foire na vraiment solo souvent il lay y a d'autres secteurs ñëw ci biir pour wane aussi cette exposition donc comme ni ma leen ko waxee woon sànq donc mi ngi ñu ñi produits naturels xam peut-être yu naturel donc ñu ñu des jus Absa laa tudd Absa bio. maanaam lépp looy jaay bio la. lépp c'est naturel. donc Absa tey lan ngay indi fii ci foire. indi naa leen ay thé thé gingembre thé xabadu sawda indi naa leen ay mburaake kër maam mburaake kër maam Ramatulaay Seck indi naa leen njambaan Dakar bi euh, màdde bi jeex na ak buy confit bi confit buy meew kasa lañ koy defaree ak buy indi naa leen ananas naturel jus orange naturel chocolat chaud. indi naa leen thym gingembre citron indi naa leen ay produits plante tamit. macha allah tey nan nga gisee sa expositoire bi est-ce yaa ngi jaay. waa maa ngi jaay bu baax. Mhm, visiteurs yaa ngi ñëw macha allah. macha allah nan nga gisee foire bu am foire laadum foire ay xar ngeen tamit ngeen dugg ci exposé tey loolu qu'est-ce que ça macha allah foire laadum ñu ngi siy gis sunu bopp waaw ñun ñëpp ay éleveurs lañu sax ah. waaw loolu la ñaan ñun ñëpp waaw foire bi neex na macha allah après dañuy accueillir dañuy jàppale tamit dañuy dañuy ñeewantal daal dañuy ñëw jënd dañ lay waxtaan dañ lay conseiller macha allah foire Ladoum moom macha allah ñoom ñëpp la ba pare seen président yi ñoom ñëpp baax ñoom ñëpp baax macha allah.

borom Mbour ah. waaw moom laay wax léegi ma ne borom Mbour. noonu la demee bu neex bi la ci bi. la Simba juga. macha ki kii Simba. ki mooy Simba. di dom si Picasso. ah doom Picasso la. ak bidéo bu fànk. si 14 mois. jeune mâle la quoi. 14 mois. 14 mois la toll. kon kii foqagul. foqagul mu ngi nii boo ko xoolee. est-ce que dugaloon ngeen ko ci concours bi. dugaloon nañ ko espoir la quoi

moyen de une semaine buñ ko àndee fii mu jox ñu cent neuf quatre-vingt-sept si diggante bi mu leer mu war na la si une semaine yokkal na la deux centimètres et quelques comme loolu rek doy na ko. ci quatorze mois. exactement loolu rek doy na ko waaw. alhamdulilah tey tey lan moo waraloon seen participation bu gën a large ci foir bi exposé wala expos exposition vente est-ce que yéen a jaay wala yéen a ngi ci bi waaw ba si démb démb démb rek am na benn kilifa bu mag. man la waxal nak ñew na taxaw tek ci loxo man ma xawa a loxo bi wañar ko mais lepp lo gis rek suñu taxaway ak taxaway bu ñu mënte am amna ñu nekk suñu ginnaw ko moo tax ak luñ ci mënte def ak luñ ci mënte wax dañuy waxtaan ba jiboo légui lolu mom mo nekk si digënté bi mom mo waral sa matin mu woo ma ne ma dafa bëgg ñu continuer suñu discussion manako ko il faut nga may ñu ñu gën waxtaan gën a waxtaan bi nag lan moo ñuy may opportunité ñu gën a waxtaan foire bi demee lay jeex. ñu demee ba ñibbi toog suñu kër dinañ ko invité mu ñëw suñu bergerie bu visité dinañ si gën a waxtaan bu nekkee wërsëgam ñu jox ko ko te xam ne xar bi si moom la war a dem. bu fekkee tamit xar bi dañ si war a liggéeyaat dinañ ko téye liggéeyaat si. incha allah donc tey lan mooy lan ngay tëjee ñu dem xool yeneen bu yeneen box ak yeneen bergerie waaw xanaa di ziare ñëpp ah. di nuyu mbokk éleveurs yëpp di wax ne kontaan nañ suñu semaine bii ñu fi def yàqamti wuñ mu jeex parce que famille la quoi matin ba guddi nag laay wax ñun ñëpp ñooy toog nekk si jàmm nekk benn kenn du am envie sax ñibbi sa këran ah. wala boo demee tamit boo demee sa kër doo fa def deux heures de temps trois heures de temps nga ñëwaat kon tey ñun yàqamti wuñ lii mu jeex te di si yokku tamit di sant ñi nekk si ginnaaw yëpp mooy ñiy toppatoo xar yi di liggéey xari di sanga xari di ñu yott xari ci bëpp anam parce que dañ né ferme agricole kon yamuñu si. yemoo ci élevage dañuy exactement dañuy bay li bay moom la xari di dundé té ñi gérer xari ñoo gérer mbay mi. non yeen foog ma seet si leen spécial émission découverte. Eh, exactly ba paré agro business la moy stand bi nga gis ni tout près lépp li nga fa gis ñu exposé ko fo business si agri euh, ferme agri business agricole business ñun ñoo koy jaay ñoo koy importer di ko andi Sénégal euh, boo bëggee xam fan nga ñu mën a trouver boo demee si Facebook Instagram YouTube whatever foo defee ferme agricole business rek ferme agricole business rek lien bi lépp. non dinaa leen seet si mu gën a yaatu. non bëgg nag nga def loolu. nga def loolu kontaan

vulgariser ko rek ñu nga ko defal moo ñu ngi leen di gëreum bu baaxa baax. Père Lamine Diop mi moy borom ferme Maxtoum ken dootu ko présenter ci milieu élevage bi donc tay nan nga gissé première édition foire départementale bi en tant que parent. waaw mbégte lañ am ak satisfaction parce que mbir su féké dañ ko door mu nek une première édition nga ñëw fekk niveau bi yéeg am des bêtes de qualité l'organisation IE et que tay wax dëgg yàlla kilifa yi fi dajé yépp ngir sargal ñu màggal bés bi mbégteeg lañ ci am di ñaan yalla comme c'est une première mu may ñu fekk ko yeneen ati at té bu ñëw rek dakk lu ci des. d'accord tay mu melni ay discours yu am solo discours fédérateur yi nga xam tay day pour rassembler tay les éleveurs la mu melni tay le grand Serigne wax na ko melni Aboukan wax ko tey qu'est-ce que qu'est-ce que ça te fait ba déglu lu mel nonu en tant que yow ñu ngi lay wowe aussi le médiateur donc qu'est-ce que ça vous fait tay pour wara jëm ci liggéey bu mel ni Wa, en fait dafa jot parce que xam nga mbir bu ngeen ko yoree di ko doxal kenn ku nekk génn ci góor a koñam di def muy dox bu demee ba pëccëxoo di ci am dafay laaj ci ñi dajawaat dajalewaat doole yi ànd pour mun a jógaat jógu bees et élevage moo toll foofu élevage moo toll foo xam ne tey il faut que ñu dajawaat force yëpp par zone ou par secteur wala par région ou département ñoo xam lu ñu koy defee mais il faut que ñun ñi dajawaat reconcentré ko pour mun a mun ko yëkkat ci beneen niveau jog na ci lu tuuti di dox ba egg si fii wara jog dem fenen pour dem fenen nak da fay laaj nit ñi boole waat doole yi and pour buñ koy fi ñu jëm mo tax suñu déggé nit ñi ci wax ku ci wax dañu japp ñun ngay waxal parce que yéene bobu lañu am et moy njëriñu élevage également mo tax ñi ci wax yépp liñu wax dañ leen ci adhérer dañ ci adhérer and ak ñom vraiment taxaw ci pour que loolu mëna nekk mu melni discours bobu yépp discours bi benn discours la mu melni pionnier ñu melni ñom pa masour mbo ñom Abou yéen ñi ñëpp yéen ngi jëm ci walu bobu aussi grand serigne invité na leen ka aska ngi pour ngeen mën ci discuter Tay loolu muy melni tay benen pas juddu na ci côté wo. Wa ouverture la parce que grand serigne wax dëgg yàlla limu wax tay wax ju rafet la et yene la am comme mom moko yor au niveau du ci chambre de commerce bu Dakar il faut que mu woo nañu pour ñu ànd mom bu ñu fi jógee dinañu dajé xol naka la ñuy mobiliser wu ànd ak mom jappante liggéey xol ñeneen ñu mëna andal également parce que képp kuy yëngu ci développement élevage rek je pense que ñun nga koy defal waaw motax woote boobu ñëpp ci sawar et que lu lu lu lu lu jaadu la ci jamono bi ñu toll dinañ ko fekki bu soobee yàlla ànd ak moom ci taxawaay boobu. incha allah sa dernier mot président. waaw gërëm leen rek parce que vous êtes une chaîne boo xam ne yéen a ngi bépp chaîne boo xam ne mu ngi ñëw di vulgariser di yëkkatu ci élevage rek dañ lay encouragé di la ñaanal yàlla nga yokku voilà vraiment kontaan nañ seen taxawaay ci foire yi ni ngeen di taxawee ci jur gi di leen ci ñaanal yàlla di ñaan vraiment ngeen yokk di ñaan aussi yëpp ba leen chaîne yi ci nekk yëpp vraiment di ko vulgariser yalla def leen yokk seen kàttan yëkkati leen dañu mujj nek ay télé yu maga mag waaw yow mëna yalla yalla ñu ko yalla defal. amiin amin top mo nekkon président Lamine Diop vraiment mu nekk président Maxtu ferme Maxtu ñu koy remercier bu baax ci quelques kàddu yi nga xam nanguna ko sànni ci suñu micro. ñu dem xolé président association bi ñi nga xam ñu organiser foire départementale bi ñu leen. nous ñu ñëwaat encore pour découvrir euh, vraiment foire départementale ñu ñëw tey ci président bi nga xam ne tey bokk ci couleur ñi le bi nga xam ñoo organiser foire bi tey muy président Cheikh Sadibou Sagna à ASF donc président tey organisé organiser lu mel déjà on te laisse te présenter ñu bàyyi la nga présenter wu. waaw maa ngi tudd Cheikh Sadibou Sagna nekk euh, président association des éleveurs sans frontières ASF. donc waa ASF tey vraiment président tey ban idée ngeen am ba indi lu ni mel foire départementale bi. non idée bi xam nga comme niñu wax rek euh, association buñ la koy jox euh, da nga wara a ci ay objectifs te objectif à à moyen terme yi euh, lëkkaloo nag yeneen association yi ba mëna def ay événements ba mëna am maîtrise euh entrant yi nga xamante ne éleveurs yi moom lañ soxla ba ñu mën ko ñongal ba lépp di yomb si ñun waaw bi ñu yàlla defee nag opportunité bi à travers euh, foire bi nga xamantene wa waa GIE Suxali Jur gi annulé woon nañ ko vraiment ñom Pape Gueye ak leur tout leur bureau ñu nekk ay nit yu simple yu yu yu yu dëggu vraiment ils nous ont proposé ñu ñu liggéey ensemble voilà ñun tam ñu ci proposition yooyu noonu le bureau de ASF def ben protocole djébal lañ ko vraiment ñu ñu kontaan rafetlu rafetlu ko fekk ñun japon nañ suñu date mais à sa date bien ñu nekk di utiliser ni si biir date bi ñu ne non pourquoi pas ñu fédérer def ko benn et que objectif bi c'était de de de vraiment fédérer toutes les associations ak j'ai yi nekk si département bi et bi ñun bu ñu joxee suñu accord de principe rek après daw nañu dem seeti yeneen association ak GIE vraiment mais Alhamdulillah am nañu ay retours positifs jusque rek ñu ci bëri am na lu ñu nous tax euh, en grande pompe mais nous ngi sur les années prochaines éditions Inch'Allah. dans prochaine édition yooyu sax la prochaine vraiment ñu discours Nous ñu fi dégg grand mu président Aboukan. Kane ñu un discours boo discours fédérateur parce que que comme def lu département. mais non je pense que. Euh, lepp luy association mbooloo lañ ci soxla donc ñun mbooloo bi tant que mi ngi daje rek je pense que ñun dinañ mën a nekk euh, say euh, duñ ñu mën damm déjà parce que tey kenn ñëpp xam nañ ne jur gi li ñuy lekk lekk bi cher na problème pour santé bi métti na médicament yi ñu leen di jox ak ak ak vitamine yi ñu leen di jox cher na donc lenn rek moo mën a tax ñu mën ko wàññi nous ñu nekk ben say di waxano même discours di tenir le même langage mais nous en fait euh, dañu am bureau dynamique Nous ah, euh, sommes xamantene composé de jeunes ah, le vice président Hassan ah, Gueye mang le vice président Ousmane Kane Wali Waagi Gaye ah euh, ñëpp donc président secrétaire général Pape Moussa Moussa Ndiaye Moussa Traoré ah donc vraiment c'est des gars qui sont dynamiques et intellectuels affairés liggéey liggéey bu fasantiku donc tey bu ñu yegsee fii rek ñoom la facilitation bi ñoom la. donc tey président ñu ngi lay remercier di la gërëm ñu dugg xool box yi xool boxu xar bi nga xam ne tey moo battre record bi ñu koy wax Buur Saloum donc ñu dem box boobu xool xar bi. tey euh, ci biir foire départementale mu mel ni recordu hauteur xar. au garrot tey dañ ko battre ko battre mooy xar bi di buur Saalum maal bi ku ko gis xam ni vraiment njool def na ko macha allah muy vraiment satisfaction bu éleveurs yi am ci record bi nga xam ne tey mooy record bi daan muy record hauteur tey ñu taxaw ak ki nga xam ne mooy ci borom bergerie bi xaw ma waxam ci waa bergerie bi la bokk. tey ñoo sëñ ñu bàyyi la nga présenté waaw maa Askia TV waaw maa ngi leen maa ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu bàyyi la nga présenté waaw man maa ngi tudd Seydi Diallo nekk bergerie Sirandou waaw man maa géré bergerie bi waaw borom bergerie mi ngi tudd Bakary Wague waaw wante lépp muy démarrer élevage ñoo ànd waaw. bergerie bergerie Sirandou tey tey lan la leen def ngeen battre recordu bâtonnier mi nga xam ne mi ngi tolloon ci 120 en 2023 yéen ngeen ñëw egg 123.

donc yooyu aussi mu nekk ay distinction yoo xam ne bu ci nekk bokkul ak moromam te tey yéen a jël auteur Garo tey ngeen jël premier aussi ci Mal Adoubi loolu aussi lan la leen di def mel na ni seen liggéey yéen a ciy am satisfaction mi ngi jëm mi ngi jëm kanam tey lan ngeen di xaaraat ci ginnaaw loolu. waaw Buur Saloum loolu li ñu xaar si kanam liggéey bi gën a kii xam nga moom njëkk na jël trophée avant avant kii avant Mal adulte espoir la njëkk a jël fila waaw mu def mu def kii. auteur bu jéggi dayu ba pare def LCS record LCS mu danel ko wa def auteur 113.2 def LCS 100 100 61 si si kii si 18 mois waaw djel djel fila bi première édition wa donc lolu aussi nek lu am solo tay femelle bi mo bi ngeen ko booleel ni bi mu àndal mooy ban femelle. ki ñu ko booleel moy mooy Miss Sénégal moom tamit mo djel femelle yi. concours bi concours bi jël première. ah machallah wa mo jël première wa kon melni ni lii couplet gagnant la. couplet gagnant la waaw. <laughs> bergerie Sirandou dal kon yeen mom vraiment. mo jëlat plus belle. plus belle plus belle femelle. femelle wa moko jëlat mom amna deux trophées. machallah machallah macha donc kon yeen lan ngeen di tëjee lan ngeen di tay berger bergerie Sirandou suñu bir émission. waaw bergerie Sirandou wa di contane ci ci ñom rek. nekk ak fii Moussa ak Ali ñoom ñoo gérer bergerie bi waaw man maay ñëw di leen di leen wan idée parce que man maa leen jiitu si élevage waaw waaw di leen wan ñoom ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu maag Bakary ñoo fi nekk Bakary Wage waaw moom mooy borom bergerie bi. bergerie Sirandu fan la nekk. bergerie Sirandu mi ngi Medina côté Sénélec médina rue 33 angle angle 16 foofu la nekk. ñu taxaw ak Bathie Sall moom mi nga xam tamit éleveur la nek bergerie BKR Bathie lan nga ñu mën a wax tey ci ci ci vraiment ci Buur Saloum ak aussi tey ci foire bi ñu taxaw ni waaw bi euh, mbégte rek parce que franchement record El Toro Garo xar mu ngi un mètre vingt depuis 2020 avec bâtonnier euh, trois ans ñu toog euh, Buur Saloum ñëw buddi dañ car wax xar bu sut ci àdduna bi Sénégal la nek bâtonnier ak doomam dee nañ Yalla na li fi bay barkel. ñu toog ba 2023 xar bi génn a sutaat ci àdduna bi barke demu ci guddi ñu officialisé ko mu nekk bergerie Sirandou Médina ko ñu jëkkoo euh, mu nekk fii di xar bi ñuy wax Buur Saalum di doom ci Picasso yaa am nekk doomu Càndee la mu nekk fierté ci càmm gi parce que tey bu ñu ne mouton élevage ci àdduna bi Sénégal moo jël paie lan moo tax mu jël paie mastration yii la xar 1 mètre 20 amul fen fenn waxantuma la 1 mètre 23 nga amay LCS 168 officiel am TP 151 ak poids 181 mu nekk loo dañ koy ndamoo femelle 1 m 10 1 m 105 euh 5 bour nek lo xamné image am inshallah dina tas 5 continents partout ci aduna bi mais fierté élevage bi la fierté euh, sénégalais yi la fierté ministère de l'élevage du Sénégal la inshallah allah moo euh, am nañ am mbébét yo xamné dana am salon yu dan danañ ko defal yenen innovation yenen promotion yo bo xamni image am dana gëna tass ci aduna bi tay dal ci gattal xar bi sut ci aduna bi mu ngi ni ñu naan ko Buur salum mouton les plus hauts du monde di setu Saalum ba di setu Aïcha ba di setu euh, Thiandela ba mu ngi ni nek bergerie Sirandou di félicité boromam parce que fierté la aussi li du ndamu bergerie Sirandou kessé de ndamu élevage bi la parce que dafa jël baro bi yëkëti ko romb 1m20 dem 1m23 1 mètre 20 sax kenn mënuñoo jege ci àdduna bi waxantuma la 23 kon dans 15 ans 20 ans ken duñu dab ci lii kon nañ ko santé yàlla te di ko gërëmee way jur di féliciter Bakary Wagué ak saafam yëpp Ali Moussa Seydou le coach le, le directeur du Bergerie Sirandou nek ay ndanan accompagner sen best femelle bi ñuy wax aussi Miss Senegal, té ma la ben affaire dafa jël record jël coupe bi jabar ji mu andal ñu nan ko Miss Sénégal jël coupe laa dégg record TP bi. <laughs> loolu laa dégg lu doy waar. yaa ngi bokk su Carrefour des champions. macha allah macha allah vraiment merci beaucoup merci beaucoup Bathie. mu mel ni toon fii la ñuy terminer suñu visite boxu xar yi dañuy war a dem fële ci volaille bi. te nga baal ma da nga ah. am lu rëy. image am njëkk après record. waaw yaa si j'espère que sa télé bi si bokk. maa ci njëkk am kon téléspectateur. Euh, Assia Assia. Euh. dal ngeen ci. macha allah macha allah amiin incha allah merci. ñu ñëwaat fii ci beneen box muy bergerie la Saloum boo xam ne suñu frère Maguette moo fi nekk di ci yëngatu. vraiment mu nekk koo xam ne mooy borom baraka kenn du kenn baraka nga xam ne kenn dootu ko présenté ci ci milieu élevage ak liggéey bi donc ñun nuyu Maguette euh, sant ko ci recevoir bu ñu recevoir Maguette ñu bàyyi la nga nuyu. waaw ñu ngi siyaar sang bi di siyaar monde élevage yëpp di leen siyaar yéen ñi euh, di leen rafetlu seen teewaay bu baax a baax a baax ndax mun naa ne fu élevage egg seen loxo jugu si. ndax ñepp nekkul ñoo mëna ñëw mais képp ku mënda ñëw rek yaakaar na yeen yeen a leen di jotalé té li ngeen di jotale lool moy liggéey bi nga xamanteni bi tay tey kenn amul seen fay dal wa di sant ñepp nak bu baax baax baax. nga tay bo gisé ñu gëna taxaw sa box tay moy ki mi ngi tuddu Arafat Arafat di nekk ci doomu ki nga xamni mo jël foire bi muy Bour Saloum tay lan nga ñu mëna wax ci lool wa Bour Saloum mom li mëna wax si mom dafa bari parce que. Bursa Saalum do na xar bo xamanteni bi du xaru ki mom mu nan du xaram mën naa xaru monde élevage parce que li tax ma ne xaru monde élevage la euh record bu mu teg nii euh, pour élevage la quoi ñep wa dama nan élevage a gagné mais du borom bour mo gagné ndax euh, bar bi fim ko aj pour éleveur yi gëna gor gor dox jëm ca parce que so xolé tay euh, bi ni bi fi kii ñëwee ki atomique ki bok ba bu fi défé 120 Euh, mun naa ne boobu 2020 la ba euh so duggee gétt yu bari da ngay gis ay 118 117 kon aj fi ko aj nonu taxna na éleveurs di gor gorlu di daw pour am tia dama ne nak buur mom dafa exceptionnel mais taxut ne euh 123 la am rek dafa wara jur 123 123 yoy non tay fam ko tek day soñu éleveurs yi pour ñom ñëpp ñu gorlu pour lu mu dee dee dee dee dee ku si nekk sa xar dina am 118 ba pare équilibré am doole ba ba pare wér nga xamante ni bii tey ëllëg si biir dañuy am ay xar yoo xam ne dañuy kawe ba pare équilibre loolu la quoi mu doon xar bu baax a baax a baax. kon mu mel ne record bi rek du question da ñëw battre ko mais question de amélioration bu muy def ci xar yi. waaw mu ngi noonu nag xam nga liggéeyu élevage bi kii doomu buur bi daa tombeek suñu liggéey waaw nekkul buur dafa siiw rek ñu dem jënd ci da tombé suñu liggéey parce que so xolé doomu bour bi mun naa ne mun naa nekk sixième génération ci gétt gi parce que ñun suñu dugalee mal dañ ci liggéey parce que dugal neen mal liggéey ci liggéey bu am solo muy euh, Ilias so xolé Ilias ni mel doole jak bopp bu rëy beeg guddaay bi ba ci si dañu dem jëli Faris mok Ilias so dé xol ño bokk même liggéey mais comme ko que ñu sang dañuy dañuy gëna a considérer affaire bi comprendre mom tamit mu ñëwaat defaat fa liggéey bu am solo biñ ci jógee xam lolu worna na te jeli ñu dem jëli baraka bi mu indi saxu yel gëna rafetal xari comprendre nga bañ jugee ci yooyu tamit dem séti papa papa ñom tamit ndjol ak saxu yel da sey deggu ñu gëna doli comprendre nga légui nak après papa mom ki ki ki gëna yombal liggéeyam moy dom bour salum ñu dem jël si jigen mu ñëw jur ko far yàlla def mu nekk jigen mu ndon xar bu am yaakar nak wa di ñaan élevage monde élevage yépp ñen ko ñaanal te xam du du suñu xar xaru càmm gi yëpp la wa te ñong ci wo woo ñëpp di leen ci ñun mom xar bu ñu yore mom japp na ne xaru ñëpp lay doon. Arafat mu ngi ci tollu ci ñaara mois. Arafat mu ngi ci 6 mois mu ngi ci 6 mois wax dëgg yalla mais xar bu am am yaakar ndax dañu jël dom procureur procureur dom magistrat euh, at Linguère mu def jigen ñu jël ko euh jox ko euh jogay ñu jox jox solution solution doomu jogay la jogay doomu Mahfous la euh, ak Aïcha comprendre nga mu ñëwaat fofu ñu jël femelle bobu dem jox ko Buur mu judd. kon soo dee xool fi ko tak dafa woor lool parce que ñoy dem di jënd biñu ñu ci yëkëti xari mënu ñoy dem di jënd doomu Maysara di jënd doomu euh, Buur di dem di jënd doomu Abdou Fall yoy ñoy xari nga xamanteni ni dégg ci yëkëti légui nak su jënd mal yoy yëpp mun naa sa liggéey. léegi nag ñu xool xar boo xam ne boo leen loo waa day gën a yombal liggéey bi te da ngay gën a mën a concentré si moom. waaw eh, saay saay waxu technicien la ñu wax de kii càmbar na affaire bu baax macha allah donc tey lan nga am looy tëjee Maguette ci ci ci Arafat ak production bi ngeen ci xaar incha allah donc ñu leen di ñaanal vraiment yàlla def ci barke. li may ñaan rek di ko wax surtout jeunes yi mooy neen gën a góorgóorlu si càmm di gën a rafetal di di di wax ne jeunes yi. élevage ku si képp ku si nekk waroo am fenn fooy far yow faralal xar rek sa yitte na doon xar sa yitte na doon xar bu baax sa yitte na doon rafetal jëme si ñëpp mooy waral lépp loo jublu rek sunu borom jàppandal ko ndax suñu borom ni mu bindee doomu aadama wala xadd karam naa ba ni aadama bi mu wax moo waral na lépp loo yéene doomu adama bi rek day ñëwaat si yow moo waral nen rafetal te nen jëmal xar boo ki ngay jël di ko may tëb lam cey am tiyaaba mënu koo weesu ki nga may tam mu dem jaay ay million dimbali sa ay way juram dimbali famem dimbali lépp tiyaaba mënu ko wessu mo ki gasteen wala ku saxal garab bu am meñef ño yeb moo tax maa ngi ye éleveur yi mag yi ñu jàppale éleveur yi ndaw yi da xam ne képp koo gis rek ah, tambali won na fu métti waaw loolu macha allah macha allah loolu loolu dañ koy dëggal ndax mom nee ma sa yo amé femelle rek indil ma may la top donc loolu mom nek na lo xam vraiment lu ñuy saluer mu melni mom partager kat deug la mu melni ni loolu tànk yooyu si ku mel ni Siré Diakité nga xam ne moom moo wax élevage et partage ko moom mu ñëw feelu ko si mun mënuñu lu dul li ko rafetlu ma sa dernier moo ñu. waa di sant ñëpp rek di sant sunu mag Amène Ndiaye nga xam ne lépp rafet yàgg nañ comprendre nag. xaritu Moussa waaw xaritu <laughs> mais day daw caméra du génn fenn day daw di nëbbatoo waaye mën naa ne ñëpp lépp lépp moom la comprendre fu ñu egg si élevage rek loxom dugg na si bu baaxa baax. non bu kër nga di def ci découverte dina gën inshallah allah. <laughs> ngi nee mo ngi nee da ka waroon a këfaale sax. ma ko jël jëf jërëjëf. merci beaucoup. Maguette Moussa nek bergerie la Saloum donc amet yak yak saa si sa rax gën di liggéey ci affaire bi mu nek lu nice donc tay lan nga am loy wax ci émission bi ak par rapport ak Maguette ak par rapport ak ak bour bi di Arafat ngeen recruter. waaw alhamdulilah ñu sant yàlla rek mais Maguette moom sama rakk la Maguette Omar Use ji ay samay rakk la wax dëgg yàlla du ma def dara lu sant leen di leen gërëm de mais wax yàlla moom. mais tey càmm gi fan ngeen ci jëm ndax lii recrue boobu doy waar la macha allah. Ah, mu ngi nii de gis nga ko de gis nga ko

ay puis laa ni pada perruches, ay rongeurs comme euh, hamster cochon d'Inde ak lapin côté ganar maa andi ay euh, sultan euh, brahma sebright combattant ñeenti races la présenter pour cette édition donc ak quelques races de pigeons notamment le monda tay ak sa exposition oui. da ngay ou rek exposition vente bon exposition vente là, exposition vente là. comme chaque chaque foire chaque année exposition vente nous ñu def Et respecté quoi. d'accord nan nga foire bi sa participation ci foire. ah macha La foire mon la euh, première édition là, mais entière satisfaction entière lañ ci parce que sujet rafet il y a eu une bonne présence euh, voilà donc euh, dans l'ensemble ça va ça va vraiment. la plupart xar gens ñuy def yow nga ñëw indi volaille ak rongeurs. donc qu'est-ce que ça te fait tey nga ñëw part décalé ci particularité est-ce que vous avez visite non mais élevage euh, je dirais même foire je soxla nga foire c'est euh, la diversité. foire bu type de clientèle foire xar mais diversité donc euh, attraction les parce que y a une espèce de yu avant ci parking, mais foire diversité normalement normalement ça un un peu visibilité par rapport à exposant parce que les foires xar mais wa volaille ñun chaque chaque jour dañuy am visite c'est ça, sax suñu stand tout le temps tout le temps des fesses. donc euh, c'est c'est un peu ça. Et lan nga ñu mëna présenter ci sujet wa sujet ñu andi je nii bi mën la présenter c'est yo ya y a espèce bu nek am origine am na par exemple si jëlé kaw cochon dend yii en gars dañ leen di woyé cochon dend mais ñom seen origine Amérique Amérique du Sud là gars yi di leen di ah, cochon d'Inde parce que conquistadors yi ñoom bu ñu Europe kii Amérique dañ ko jaawale woon le nouveau le nouveau monde dañ ko jaawale ak Inde. donc euh, ils croyaient qu'ils étaient euh, aux Indes. après ils ont vu les cochons comme ils avaient des comportements ils ont ñoo cochons yi ñoo xaw a parce que dañoo doon wasin seen doom yi di dox di def donc ça c'est des cochons de Inde donc euh, appellation bi foofu la jógee donc c'est des espèces yo, il y' a plusieurs sous-espèces nag am na ay péruvin am ay chelti am race yu bëri mais am na espèce boo xam ni c' destiné à la consommation C'était des cochons d'Inde qui pouvaient peser jusqu'à quatre kilos ah waaw ñoom ñoom nag loolu lañ doon gën a consommer sud américain ñoom bëggoon prisé woon nañ ko donc côté Ghana tam andi nañ ay sebright sebright nga une race boo xam une race anglaise rare na trop très très rare te sincèrement bon def na buzz si bi Bon, c'est une race qui a été créée par John Sebrae. Il y, a, il y a aussi les, les, les, poules, les brahmas ici. les caïtés, les ramènent. Les combattants, les meilleurs combats combat de Kogi. Donc, euh, espèce bu nekk am historique am histoire originale. monnaie il ça c'est un monnaie milky. C'est un spécimen qui peut coûter jusqu'à 1,5 million de bernes. Qui kii milky Qui kii milky couleur du montant, quoi. voilà donc euh, milky, c'est un gène récessif. Donc euh, pour pouvoir le produire, il faut impérativement que les deux parents aient le gène. Le gène milky pour la reproduction puisse se faire. Ben milky, moun le Donc nous a un milky, voilà ben milky à un porteur de milky, voilà deux milky pour produire milky. Donc c'est un pigeon très très rare. Actuellement, bon, il fait partie des races les plus, les races de monde les plus chères. Il y a 1 million. D'accord pour ça, 1 million 5. 1 million, 1 million 5 pour un spécimen milky. Voilà, donc euh, il t'en faut deux pour pouvoir en reproduire. Donc euh, le couple va facilement atteindre 2 millions. facilement facilement. bleu bleu mais couleur c'est parce que pub bi porcelaine bleue. ok donc nom euh, de brahma bleu porcelaine. bleu donc porcelaine. maintenant prochaine croisement bu bleu noir à porcelaine bleue. Machallah. porcelaine bleue la une sélection, pour euh, suñu futur travail. Masha'Allah, qui coupe le couple kay ku ko bëggoon mu Brahma bleu bon prix cher ou non, mais facilement 250.000 de de coupe. le cher. ou non? ah non cherul par rapport par rapport par rapport c'est races yi élevage. parce que les yu sont beaucoup plus yu bëri andiwuñu donc par rapport à eux le prix est raisonnable quoi. ok c'est c'est raisonnable qualité ce ñoo nekk nii. Ça, c'est un coq Cahuté. C'est un jeune. Donc, mon Ghana a tendance. Là. Okay. Couple, il y un entre 200 à 350 000 pour les Brahmins. Pour Les... adultes? en âge de produire. En âge de produire. Il n'y a rien quand même. Non, cher, l'eau cher. Élevage, l'eau c'est investir d'Arnovo. Imagine, ce, ce, coq-là. Oui. Vous nous voyez le prix, il est cher. Mais les poussins se vendent 10 000 unités. Vous faites jeune, comme âge, vous avez une femelle. Vous démarrez répondre. Première année, une femelle peut te faire 250 œufs. 200 à À raison de 10 000 unités, la femelle te produit en moyenne 2 millions. 1 million 5 à 2 millions par femelle. Si tu as 10, femelles, ça te fait 15 millions. Euh, c'est vrai que Lolo aussi, mais vraiment, il y il des choses. Vraiment, c'est une émission qui est et que ça a été un plaisir de ñëw découvrir volaille donc vraiment on est content de am ah di le remercier aussi euh, de remercier téléspectateurs de ñëw seetaan émission Je suis content trop trop trop de ci président parce que nous invité pour nous promouvoir euh, volaille. j' J'espère que nous sommes nous. si nous ci foire bi gis Je ñu présenter lépp Je remercier aussi euh, ma mère mes soeurs. Nous nga élevage. la famille c'est important toute la famille comprendre éleveurs yi nekk ci kër yi di di élever amuñu espace ñu mën leen xajal ci kër c'est vrai c'est vrai surtout ma sama famille ils ont été exceptionnels pour sama élevage. voilà parce que bu comment commencé école primaire comment commencé élever jusqu'à aujourd'hui def sama cycle universitaire yépp ñu supporter sauts d'humeur mes problèmes

ndax mooy benn éleveur bu ñàkk xorom rek nekk benn éleveur bu ñàkk solo nga nekk fi xaw rek waaw <laughs> daaw moom mooy loolu quoi daaw mais <laughs> daaw bañ doon présenté kii loo ñuy wax. waaw kii mooy Ardo Ardo métis bu général ak Holstein waaw moom ñoo ko juddulu nag waaw ñoo ko def croisement bi. ñoo def croisement bi mu eh, am na 6 ans 7 ans mais ko gis vraiment ak ak poids est ce que waaw mu parce que moom mooy tëbal boppam. day tëb day tëb waaw de. mais pour man dañ inséminé wala. waaw non moom dañ ko dañ ko pompé nag mais moom day tëb. waaw day tëb yar ko na wala comment ça se passe. non amour la rek bëgg-bëgg la rek xam nga bëgg-bëgg moom. boo bëggee benn affaire moom même lu mu métti métti sa poche sax doo ko yëg. waaw mais bëgg-bëgg la rek. xam nga Ardo moom amour amour am ba nga mënta financer duñ ko waaw lu ñu mun de financé moom lu ñu koy. mel ni aussi day jàpp ci foire yi parce que remarqué nañ ni foire bu am ci élevage Ardo dina ñëw teew. waaw surtout gars yi noonu la ñuy sonal nag si foire yi. waaw instant yii moo ngi war a demaat Tivaouane nii. waaw ah oui moo war a dem Tivaouane le 22 instant yii nii le 29. ñoo ngi ñoo ngi luwaat euh, géejawaay encore mais xam nga il faut mu noppalu nag. mais day noppalu. waaw <laughs> waaw. tey coono boobu déplacement boobu aussi est-ce que ko sonal trop wala yéen da ngeen da yoo leen koy. Euh, préparé pour mu def. waaw da koy da koy sonal moom nga xam ne gannaaw am benn oto bu nga xam te ni bu ko wooyee rek day ñëw rek yàpp ko dem du am benn problème si yoon moom bu oto bi gaaree rek moom mooy yëgal boppam. waaw oh, loolu bi image yooyu foog ngeen wan ñu. <laughs> non bu oto bi gaaree moom oto bu tëlee si koñ bi rek nga dégg mu commencé yuuxu yuuxoo bu oto bi gaaree rek moom mooy yëgal boppam na génn quoi waaw tàmm na génn. habitude lay mujj nekk la tey yéen am ngeen ay doom kër ga wala. am na doom bu góor. ko waaw mu ngi kër da ngeen produire pour jaay wala juste pour yàlla. amul la rek. bi ah. garaaw da ngaa bëgg rek daf ko daf ko amul rek. <laughs> Ah. lan gitu ngay di ziar di bu baax. di TV ah. TV waaw di leen bëggee bu baax baax. di leen ñaanal fi ngeen bëgg egg yàlla la fa yàgg egg gars nañ gis nañ seen liggéey ci élevage nañ bu baax donc li mo nekkoon vraiment suñu émission découverte tay spéciale foire départementale première édition donc nous avons vraiment dalal ci les organisateurs les éleveurs les pionniers de cet élevage là de cet élevage là donc nous mënuñu lu de aussi de leen jox dig daje ci foire ci yeneeni bergerie ci lu jëm merci